anzubila bismillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba man la soxna Oumy Sall Kara Mbacké euh, madame Mbacké soxna Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni di doomam di taalibewam ku ma xam xam ne sëriñ bi dama moom ma farak moom nag ci biir ak ci biti dafa fekk ni dafa am waxtaan bu yàgg bu ñu amoon mu nekk di circuler ci réseaux sociaux yi mu mel ni sëriñ bi day wax ak jàmbur te waxul ak jàmbur man li nga doon waxal di saf naawam comme tout couple normal rek waa am problème jafe-jafeñ war ci waxtaan fekkee ni man newuma Sénégal war a mën a wax ak samay waajur tamit moo waraloon ma enregistré waxtaan bi di ko yónnee nag sama waajur bu jigéen def mauvaise manipulation mu dem ci loxoy keneen donc mauvaise manipulation tax na mu dem ci loxo loxoy kene waaye nekkul loo xamante ni nii ñun sax dañ ko joxoon importance boo xamante ni ndax xalaatuñ ñu nekk na information bu mën a jëriñ yi dara ba ñu war ko mën a dugal ci ay site wala ay réseaux sociaux waaye nag jubluwuñ ci lenn ndaxte man ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni sama digganteeg moom nekkuma ci situation boo xamante ni dama ko war a def ay enregistrement pour di wane ni ndax daf maa bëgg wala daf maa considéré fi ma teg xam naa ko te ñëpp xam nañ ko kon nekk moo loo xamante ni nii daf ma dama nekk ci boobu besoin mais seulement li ci doy waar mooy dafa am ñu ko jël di ko ŋawti ŋawtee di ci wax am na sax nag benn sax benn waxtaankat bu nga xamante ni mu ngi ci naan waa am na ñoo xamante ne nii si yenn yi dañ leen a téye si ay audio di ko xamal rek ni ko moom moomu donte day dund Serigne Touba kon war naa jël enregistrement boobu daal di koy tegal ay soxnaam rek bu ko defee soxna yi xam tamit ne ñoom it bu ñu ànd seen borom kër yi dañoo war a liggéeyal Serigne Touba te yàlla tax waa loolu rek euh, lañ ci jublu woon ndaxte nit moom boo amee kilifa yan décision il faut nga wax ko yan base la ko teg ci jël ko donc fale que nga wax ko aussi nga xamal ko rek ni ko dalal xelam comme man ni mu dalalee sama xel que bu ma ko jàppee benn nit moom jàpp na ma ñaar waaye taman li ma ñor rek moom mooy liggéeyam ak jaayante wam waaye lii day jàngale rek man de dama ni Sénégal nañ ci jànge rek ñu gën a xam kan mooy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni parce que moom biiram ak biteem yëpp Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul la ciy dund ñun de ci re ñu nàmpatal li ñu xam ak néew xamuñu woon dara nag mënuñu dara waaye nampatal nañ ci Serigne Touba fu mu toll nampatal nañ ci Serigne moom na loolooy mission wam nañ ko xamee noonu ñu xam ne mission wam moom bu dégg bëccëg subaa ngoon ci Serigne Touba Mbacke Xaadimu Rasuul te képp ku nekk ak moom it ca ngay nekk ah ñu ngi jéggalu xanaa di leen wax rek ni leen lii waral lii moo sababoon vidéo bi waaye lii moo waraloon moo sababoon vidéo yi rek waaye di leen wax ne Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni moom kenn du moom euh, li wax rek ni man moom fas yéene takkaat rek samay laxasaay rek mu gën a dëgër rek fas liggéey ci wetam ci ngir Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nu mu ko bëggee rek ak mu ko bëggee yéene jëfe Sëriñ Tuubaa gàcce ngalaama Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni, le guide de la révolution pacifique du Sénégal